politique di dimbali jaam ñi rek te yàlla tax mu gaaw mu gaaw mu gaaw mu gaaw laajuma kenn dërëm fi ma toog laay def li may def te defee naa ñat nag waa Pastef seen waa ji bëgg naa ko jàppale te yàlla tax nee leen Ousmane Sonko mu contacté ma procès bii muy nar dem le 17 ma renvoyé ko ba yómal xiyam Mame Mbaye Niang du dem ay avocat Mame Mbaye Niang du dem man la ku ko mën nii la koy defee en direct laajuma leen dërëm nag balaa ñu naan daf ñuy dóor day laaj xaalis laajuma kenn cent franc ma def li may def ma jàppale leen te yàlla tax xam naa ni soxla ngeen ko ndimbal Mame Mbaye Niang jour procès ba du ñëw ay avocat Mame Mbaye du ñu ñëw juge yi nar a juger mbir mi ñett si ay collaborateur juge bi du ñu ñëw